salaamaaleykum Ousmane Diakhaté laa tudd eh, jiital Raziat ànd ak adop Codipass ak ñi sol soldiw ñu dajale woon fii tey organiser benn forum forum bi nag li ko waral mooy ku ne xam na ni ñun ñu nekk fileeru gerte dañoo ay jafe-jafe jafe-jafe nag mi ngi tàmbalee ci jënd gerte ci àll ba ak xoll bi ak nal bi ak jaay diwlin ci dëkk bi loolu moo waral ñu ni woon nan dajaloo ndax ku ne xam na ni nguur gu bees dafa ñëw ñu ci yaakaar bu kawe ndax ku ne jàpp na ni nguur gi fi nekkoon daf ñoo seetaan kon bu lu bees amee te ñu liggéey xeex pour loolu am yaakaar daf fi am te xam nañ ni ñoom du tax suñu yaakaar yaakaar bi nag moo tax ñun ñu ni ñoom bala ñoo defal dara lan leen wax ñun lan mooy suñu soxla lan mooy suñuy jafe-jafe ak yan solution lañ leen di proposer xam nga nit nag bala nga koy jàppale da ngay xam moom ci lan nga koy jàppale loolu moo tax ñu dajale woon tey di def cérémonie d'ouverture bi war a def atelier ñaari fan bëgg nag bu ñu fa jëlee ay dogal def ko ci kayit jox ko honorable député mu yóbbu ci kilifa yi ñu xam waa Touba filière gerte bi lan leen man ci li état bi bëgg maanaam ci créer emploi ci souveraineté alimentaire ñun lan lañ ci man waaye loolu nag bala ñu koy mën a def foog état bi jàppale ñu loolu lépp nag bu soobee yàlla ci atelier yi ñuy dem tey ak suba dinañ ko bind waxtaan ci ay ak ay expert ñu def ko ci kayit jox ko suñu député honorable député Cheikh Thioro mu yóbbu ko ci kilifa yi ba kilifa yi xam ñun waa Touba lan mooy suñu mbébét ak ku ñu bëgg a jàppale nan ngay def ba jàppale ñu loolu moo waraloon ndaje mi tey di leen def atelier ñaari fan bu ñu paree atelier yi nag di leen woote point de presse ñun ak ñun liggéey bi ñu wax leen lan lañ fa dogalee lan leen yaakaar ne boo ko état jafee liggéey bi dina jëm kanam di leen créer emploi ci dëkk bi di leen def souveraineté alimentaire ci wàllu diwlin loolu moom moo ñu fi dajaloon maa leen sant di leen gërëm. di ko di ko di ko rafetlu rek ndax nit moom bu lay jàppale yow yaa ko war a wan nan laa bëgg nga jàppale ma ne jàpp naa ne lii day yombala état bi liggéeyam ndax kenn ñàkk kenn amul sikki sàkk ne président Bassirou Diomaye Diakhar Faye li mu woote mooy lépp lu Sénégal bi dund ñu di ko bàyyee ci réew mi dara dara ci gerte ndax yaakaar naa li ñore Sénégal ci gerte amul benn réew mu ñore ci àdduna bi te bu fekkee dañoo am initiative bu rafet bi programme bi bu fekkoon état moo ko doon def mën nañ ca ñàkk ay millions wala ay milliards pour tënk comme ñoom buñ ko tënkee ba mu rafet ñu fas yéene koo jébal ministre agriculture jàpp naa ne liggéey bi ñoom parce que gouvernement bi dañ ko Sénégal ko defal mais ministre agriculture lañ ko defal jàpp naa ne tey jii may wax yow nii fii ministre bi ma fa doon teew président affaire bii nii mais ku ci nekk gis na ne président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dafa woote dialogue national ci wàllu yoon mboole membre gouvernement bi teew fa moo tax tey jii ministre bi mënutoon a ñëw mu yebal ndaw Ibrahima Sall te même bu ministre bi ñëwoon tamit ñëpp xam nañ ne techniciens yi nekk ci ministère bi ñoo yor liggéey kon jàpp naa ne lépp lu ñu fi wax wala lépp lu dina ko def ci ay kayit ñu jëbal ko ñu jox ñu ko ñu jox ko ministre bi xam ne lii mooy yoon ndax nit bu fekkee daf laa bëgg a dimbale yow da war a fekk ci yoon wa ndax nit ku ci yoon moo neex a dimbale ñëpp xam nañ ne Touba liggéey moo fi am muy wàllu gerte yàgg naa ko wax assemblée nationale yàgg naa ko wax sama émission nit mënut a jàppale Touba bëgg a ignorer gerte kon jàpp naa ne ñoom waa RASIGAT buñ ci àndee kuréel yi ñu ci àndal tënk ci document bi am solo bii dafa naa ne ñun lañ ko defal kon dañuy rafetlu liggéey bi di wax sëñ Ousmane Diakhaté ak mboolem ñu àndal ci kuréel RASIGAT bi lii la état Sénégal ndax euh, bërki démb rek bi ñu waxtaan ak ministre bi yor wàllu commerce industrie li ñu njëkk a wax mooy président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dafa ko sant pour mu créer ay zone industrie na ne zone industrie yi fi nekkoon am il faut que ñu collaborer ci mel nii kon Ousmane mën naan la yéen yéen ci yoon état Sénégal dina leen accompagner ñun ñi xam ne ay député département Mbacké muy man honorable député Fane Mbodj ak mboolem député yi nekk ci département bi yàgg nañ leen a plédeel assemblée nationale mais li dinañu gëna prétexte pour ñu mëna a pour gën leen a plédeel. man maa ngi tudd Ibrahima Sall téwal fi ministre de l'Agriculture de la souveraineté alimentaire et de l'Élevage. téwal suis fi encore le secrétaire d'État aux coopératives et au développement paysan. ñu ngi rafetlu ndaje bu am solo bu dajalé bu ñu dajalé acteurs des chaînes de valeur de la filière arachide fi ci Touba ñepp xam nañu dayo bu Touba am si.

pour les acteurs de la filière des a créer emploi yoo xam ne durable yu décent sont xam